waaye yow xale bi daa daa daa mobilisé di. asamaan saa ngay wiccal. kon dañoo Maar yéen a koñ. Boy Maar moo nekk. waaw waaw moo nekk Boy Maar ak gaari bu Ikri Bawol. Ndeysaan arbitre ba boole na leen. gaari rok gaari Bawol Boy Maar rok énergie. rok énergie moom boo ko déggee sa xel day dem ci Modou Xarañ Lo. acca waaye ikiri bawol boo ko déggee sa xel day dem ci Tapha Tine Maar Boy gaari gaari aj na loxo ye ñaan na tibb na suuf boole ca loxo ye faxas Boy Maar ak gaari Boy Maar ak gaari Boy Maar ak Gary nee naa leen bu di abonné ee eh, ay dara tay nga dee ñii ñëpp buñ la boolee rey da xamoo foo ñooñu di ko wax noonu waa Bambilor la ñoo nga ànd ak caatu Bambilor Boy Maar ak Gary Boy Maar ak Maar ak Gary ay waay ku nekk na dagg sa morom kurfañ nee naa leen cokkaas buntu la acca doorante laa ilaaha illallah gaari touché na ko jël na ko booy maar jël na ko mu koy jéem a fàq mu koy fàq bañ na gaari bañ na gaari bañ na ko wéyale na ko laa ilaaha illallah waaye yéen booy maar def na rotation daanu daaneel booy maar munoo daaneel daa wundeelu toog na ndeysaan xeexee gaare ngi noonu di dem ci ay mbokkam eh